yàlla dogal na ñu génn ci ay élection janvier bii passé élection yoo xam ne dafa siggil yeewi askan wi yeewi askan wi jël ndam loxo ca kaw waaye élection yoo xam ni dafa teg gàcce ñi nga xamante ne dañoo defoon euh, complot taxaw bëgg fooye askan wi yàlla ni déedéet jël ki nga xam ni mooy soxna Maimouna Dièye fal ko li ñepp soxla mu ne ko yow la ko denk ci bañeeru yeewi askan bi accusation bi nga xamante ñu ngi koy tek ci sama kaw manam di ma mal. di wax naan 7 millions. la commission bi délibéré commission du délibéré commission du délibéré monsieur le maire wala madame le maire moy jël li nga xamante mom le conseil municipal délibéré et dans ce cas précis muy 30 millions yo conseil municipal bi voté délibération bo xamni ku ñew ci it fi la doon yeggali wala ku ñew ci ginaawam délibération maire dafa am sañ-sañ ak taxaway ci bu def dara mën ñi nga il nekk ci commission thématique pour mën a doxal liggéeyam parce que c'est le maire qui exécute et c'est le maire qui rencontre. compte y dogal biñu ñu ak ñom man ma leen wax ni je peux mettre 3 millions à votre disposition pour les secours catholiques c'est pas le contraire parce que maire moy wax li mu yor ak li mu mais du commission moo koy wax defal lii mais maire bu jëlé ba jox commission ne ko liggéeyal ma ci li commission day liggéey waxtaan ñu réunion def li ñu wara def yépp bu ko defee ñu jébbal maire liggéey ba mu leen santoon maire xool naka lay defee ak naka lay demee li waral donc 12 million yooyu génn fa mu war a dem def nañ ko fa di wax rek ni fañ ko defee justificatif yaa ngi fii bu jotee cour de contrôle bu ñëw dina ko fi fekk kon nag foog naa ni foofu amul dara luñ fay wax lu lu ñu ko bëgg a wëlbati saay saay taxaleen a jóg ak yàq mën a lu ñu leen dara bu ñu gisul woon loolu sax ut leneen campagne boobu de dénigrement bi ñu jël bëgg ko porter sama bopp ñu xam lan moo ko waral ñun yëngaluñu mënuñoo tiital te lenn rek laa ci mën a teg mooy dëgg rek kay mujj lu dul yàlla nen la ci biir mu modus operandi boobu nga xam ne ñu koy dund ñoom maanaam ay njéeréer dañuy ravager rek bu ñu ñëwee ku ne xam nga li sa morom di def waaye danga ciy gëmm sa bët ndax mu bañ a wax ci sa bos loolu moo am Patte te ñun loolu lañ fi fas yéene jële te incha allahu rabbi ñun dinañu doon les nouvelles les nouvelles politique yi nga xamante ne ñun dañuy dundal suñu askan waaye duñu dundee suñu askan ku ñëw ñu yóbbu sa fit waaye incha allahu rabbi je tiendrai danañu bañ danañu taxaw fi ñu war a taxaw danañu and ak yalla ta dinañu dem ak ñom ba fu mu fu mu yam neex ben entité fi ci commune bi muccul ci ñoom seddoo nañu commune bi yépp waye yagul du yag de wax dina leer nek man 5 ans de mandat yi fas yéene ci and ak kuy doomu Patte ku gëm Patte ku gëm bopam te juk ñu and liggéeyal suñu Patte ba changer décor Patte su padua d'Oie ni mu mel xeetu nit yoyu fi nek ñoo tax depuis des années séddoo askan bi séddoo alalu askan bi séddoo commune bi loolu mo fi jeex. je le dis à qui veut l'entendre je ne céderai pas à la pression ma bamtu ko ci wolof ko ma xamul momay jema jéem man fi ma bok dafa metti je suis de Pastef les patriotes man may jigéenu Ousmane Sonko. kon kenn mënu maa xoqatal